ça veut dire que ce n'est pas possible ba pare nous sommes que d'ici deux mille deux mille cinquante tu imagines on peut être entre dix millions à douze millions de Dakarois. Mm. qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là c'est ay toi là où il y a des pays qui imaginent deux trois quatre ponts nous c'est à ce moment-là qu'on va commencer à imaginer des ponts mais c'est tout de suite qu'il faut ouais. le faire. Moi, je pense que bon, euh, le vrai problème que nous avons aujourd'hui et incidence yu muy am si économie bi au niveau des taxes parce que ñoom bu ñu dawalul comme il faut euh, donc ñu bëri tardé nañu seen liggéey donc partout partout partout ca di goulot d'étranglement extraordinaire xaalis bi dul ñëw et la faute tout simplement à des gens qui prennent des décisions parce qu'ils sont au pouvoir alors Malal yow it euh, xam naa ni banlieue bi ah. mais mais mais malal na déglu malal temps yi dafa changé. Hmm? sañ na dem ma yegsee loolu laa ko dañ la doon tuddee doom barki ah, dem. waaw ah, macha allah kon yaa ngi baptisé ba tey. sama rakk moomu tuddee doom quoi. ma ne ma ne ko yaa ngi baptisé ba tey ji yar na dund am ndey ak baay alors autopont mi ngi nii ñu ngi koy wone donc. Euh, Pierre xaw nga yéex de xam nga dam la doon suturaal bi mu la ko joxee ba léegi yaa ngi ma koy yaa ngi ma koy doog a woon <laughs> alors Papis Euh, Papis euh, par rapport à circulation bi ñu koy wax yow ban taxaw seetlu nga ci def. déjà il faut partir d'un constat. man boog personnellement man ñam naa ko euh, lourdeur yu embouteillage yi. Hmm. man moom mel noonu parce que du may faral di tardé. te semaine passée am naa retard de trois minutes. <laughs> sept minutes ça m'a fait mal c'est vrai parce que c'est pas dans mes malheureusement. Hmm. may imaginer nag combien de Sénégalais yi am ay déconvenus par rapport ak euh, li nga xamante ni moom mooy travaux yi avant ñu commencé ñu wax ak euh, mm. sunu sunu gan euh, Thiam maanaam peut-être c'est un mal pour un bien pour un bien malheureusement parce que pour construire mm. euh, il faut un investissement il faut des efforts côté boobu nga ko mën a jàppee quoi leneen li li si mën a wax comme ñun affaire tali xamuñu si <laughs> lu bari li ñu gis goudron bu ñuul rek xamuñu si lu bari mm. donc il faut faire en sorte que pour man qu'on ne revienne pas sur ça comme ñëpp koy subirandoo tous les Dakarois dañ koy nangu muñ ko parce que c'est pour les Dakarois pour mm-hmm. pour ñun euh, suñu circulation comme nag def nañu effort nangu métit boobu dañuy ñaan euh, que qu'on ne revienne plus sur ce cette affaire mu nekk loo xamante ne dañ ko réglé quoi pare nañ si waaw en rapport également que c'est vrai que ils ont xaw pour des raisons techniques wala seen expertise moo wax ñu jël choix boobu. Hmm. parce que ñu wax trois treize la ñu war a defar. oui trois la ñu commencé gum et moom mooy yi nekk fii quoi côté bi. Hmm. mais je pense que si euh, boo jàppee à partir de croisement Cambérène jëm foofu euh, Thiaroye et tout également xaw ma qu'est-ce qui a été prévu. Hmm. mais pour l'instant aussi c'est intenable par exemple pour croisement Cambérène moom il faut faire par exemple pour nga ñëw c'est bon. nature parce que les gens le vivent mhm. parce que mhm. par exemple pour nga jógee côté bay ñëw côté Almadies parfois wala Yoff da croisement Cambérène tu sautes tu passes par Yaraax nga wiiri jël ay corniche pour ñëw mhm. Almadies on le fait je te jure ñu ngi def quoi ça veut dire que c'est vrai qu'ils ont commencé par cet axe mais euh, monsieur le directeur. <laughs> fële am na urgence <laughs> ça chauffe également terriblement. alors terriblement yi ni ñuy wax benn étage la mais booba. États-Unis boo demee Dallas da ngay gis quatre wala je ne veux pas exagérer je pense que cinq. Dallas Dallas ah. lu tegloo. boo leen di xool boo leen di xool euh, da nga naan nii li ngay wax tu as même du mal à compter tellement c'est haut. te quand est-ce qu'on va arriver nous aussi yaa ngi wax autopont donc man benn étage laa xalaat mais ñu nit kañ la euh, yegg ci comme ni Charles wax teg le quatre wala cinq nga xam ni ce sont des yoo xam ni pour cinquante soixante nekk <laughs> xam ni teg na ku nekk fu la neex dem doo taxaw buuba waaw der <laughs> c'est vrai que félicité Pape Djibril mm. parce que tey anniversaire am la. pas anniversaire u boppam. mais anniversaire u <laughs> un an bu mu def te ah. ah, ah. waaw te boo defee fen un an. nit ñi am sentiment que def nga fa dix ans. c' est parce que yaa ngi ci yoon bu baax. donc ñu koy félicité d' abord si liggéey bi muy def te loolu du man maa ko wax. Mm. boo génne si biti nit yaa ngi koy wax nit ki moom kenn moomu leen. nit ki moom li ñu naan wax sa baaxuwaay du wàññi sa baax dara. wax dëgg yàlla.

ñaari deer laa xam a <laughs> waaye journée daal li ngay doxal. non te guddi bëri na xaw ma foo jóge nag. Ah waaye sonal nga trop. ah bon waaw. beneen wax naa la li ma sonal de. beneen bi mooy donc euh, Malal sa bi rafet na trop. xaw ma ñàkk xaw ma ci ma ci kan lañ ko nattee waaye na. seen bi xam naa bi waaj ñëwee di natt dafa fekk si écologie bi. waroon nga gis suuf yi ma sonal. <laughs> déet ko bàyyi mu set ak seen bi tey <laughs> maa koy tëj. bu lépp bu lépp lay reet ñetteel lay takk di ngeen xam dañ leen rek alors boobu loolu ci waaw waaw donc di wax que euh, xam nga quand même euh, ñu ngi dalal Cheikh mhm. mais c'est dommage que euh, plateau bi war a mën a nekk plateau de communication pour Ageroute on par la pour sax mhm. xam nga nit yi dañuy xëy di liggéey am mhm. ay projet ñuy war a tuxu ñi war a teg entre entreprise ñi war a jóge seen dëkkukaay yi dem feneen donc nit ñi même booy def loo xam ne dafa nara a changer seen nekkin même bu dul ñun muy suñuy rakk ak suñuy doom ak yooyu da nga ko am pour wax ak moom. anticiper parler aux Sénégalais au Dakar waa en tout cas ñu nekk fii pour que nit ñi xam que ni ñaari at yi di ñëw nii la dëkk bi di doxee. et en conséquence nit ñi organiser wu. xam nga loolu moom mooy sama problème fii Sénégal parce que je pense que kenn wul développement. ñu ñuy defal ay points yu auto points yoo xam ne peut-être que dina soulager ñu bëri c'est très bien mais nit ñi aussi soo leen bettee dañ leen di mën et nit ñi duñu xam déjà projet bu commencé tey kañ lay geex parce que bu dee projet dafa jël deux ans et demi wala dara loolu li mu mën a impacter li mu mën a yàq dafa bëri mën na suuxal business du transporteur yi rek ah mën na wàññi performance <laughs> bu nit ñi waree ñëw def euh, benn. par exemple benn yeewu leen daan jógee 7 foofu tu es obligé de jógee foofu 5 heures dama jël exemple boobu rek wala beneen ak beneen ak beneen ku waroon a tuxu tey jii nii bu xamoon ni par exemple fii ak 2 ans nii la ñu nar a tëjee fii ak fële peut-être kooku buy def choix wu carte mhm. mhm. bu muy dëkk dina ko dina ko xool mhm. problème bi ma am mooy du ñu communiquer ak sénégalais yi pour nit ñi xam que ni fii la ñu jëm loolu benn affaire la il faut aussi yenn projet d'envergure yi li ñuy wax vraiment fast bi ngeen di woote bi en tout cas régime bi di woote ñu mun ko appliquer ci ci euh, projet yu mel nii parce que projet yu mel nii moi je me damay je me pose la question à savoir mais pourquoi on ne travaille pas le, le la nuit oui. pourquoi mm-hmm. c'est-à-dire que euh, amuñu temps deux ans si dund kenn lu bëri la deux ans mm-hmm. ci dund kenn lu bëri la bu fekkee ni sa sa mobilité lii daf ko impacté ba nga xam ne amuloo benn performance entreprise yi mënuñu bouger nit ñi fi ñu dëkk war a dem liggéey mais loolu dafa bëri mais il faut quand même ñu gis que ni ñii xam nañu lii lu urgent la dañ ko war a teg mu taxaw dañu bëgg xam. Mm-hmm. pourquoi on ne travaille pas ci fast track si l'argent est disponible. dëggantaan c'est important pour que ñu wax ñu exactement projet bi kay lay commencer. Mm-hmm. suba lay jeex. mu ñu leer parce que nit ñi aussi il faut nga wax leen lu leer boobu am na beneen bi moom mooy que modèle bi quoi modèle de de de de travail bi ñu am est-ce que amuñu loo xam ne nit ñi mën nañ gis que ni ñi ngi teg benn projet boo xam ne il faut ñu def ko nu mu nu mu gën a baaxe mais aussi nu mu gën a gaawee pour mën a impacter bañ a impacter nit mais li am ba am mooy nit ñi même boo leen defal lu baax sentiment bi ñëpp am mm-hmm. mooy que daf ñu bett lu mu la bett mën la mooy que nit ñi <coughs> aussi il faut ngeen di wax ak nit ñi mm. pour que ñu xam que ni lii mooy am ci dëkk bi yeneen yeneen xam bu ne am nañu yeneen treize autopont mais ñun xamuñu si dara donc loo leen am def ko ci tiroir yi ak ci dossiers yi c'est pas important pour le Sénégalais il veut savoir fii ak cinq ans ah. Mm-hmm. yi nga xam ne président Macky Sall moo fi am lan la ñu am comme projet de développement mu leer nit ñi anticiper. en mm-hmm. conséquence mais mënuñu xëy suba rek ñu ne dégg naa ni te euh, kii. tëj nañ fa tëj nañ fa état bi change. di jour au lendemain ñi doon yeewu suba di yóbbu seen doom yi am problème il faut quand même te de te du benn benn mur bu ñuy tabax ça peut du temps il faut ñu wax ñu ñaata temps lay jël bu ñu waxee ñaata temps lay jël nan la ñu mën a def pour que projet bi quand mu gaaw ñu mën a attaquer leneen ko et puis yeneen treize yi ngeen am ngeen teel a wax nit ñi nit ñi commencé aussi di organiser en en conséquence parce que bu dee treize la am. on en a pour dix wala wala wala est-ce que dina mën a pare ci mandat hmm. président Macky Sall bi. <laughs> dinañu ci tontu alors euh, avant ñuy dellu ci Cheikh euh, Pape Djibril le sujet qu'est-ce que ça t'inspire tey <laughs> borom anniversaire bi. Euh, bés si di di kontaan di sant yàlla bu baax. et je suis très satisfait que mu tombé encore si jàkkaarloo. Hmm. <laughs> qui symbolise aussi beaucoup de choses pour pour man. Hmm. et di remercier Bouba. ak euh, ñi nekk ci kër gi yëpp mais principalement lui parce que ma mosuma am sentiment ne su suma employeur la sama diggante ak moom hmm. je le considère comme un grand frère moom aussi il ma considère comme tel e je pense que facilité na sama liggéey lu bëri initiative buñ ma jël lekk euh, accompagner nañ ma si et que mësuma sentir benn entrave wala obstacle sur quoi que ce soi te loolu dama ciy sant yàlla bu baax je pense que vigile yi ba ci ki jiite kër gi ñëpp laa jubal <laughs> et c'est très bien <laughs> donc di ci sant yàlla bu baax a baax donc pour dugg ci sujet bi man euh, Bouba évoqué na ko mooy bu ñu yëkkatee travaux honnêtement daf ñuy bett loolu mooy bu njëkk bi Cheikh je mhm. pense que ne plan de communication bi dafay des trop du ñu xam kañ lay commencer du ñu xam kañ lay jeex loolu moo ñu dal ci TER bi. Hmm. yaa ngi dégg donc euh, du ñu xam kañ lay commencé du kañ et puis projet yi ma fi gis yëpp c'est ça qui nous arrive amul benn plan de communication boo xamante ni dina leer ci suñu bopp. beneen bi mooy ba ci plan de circulation bi nga xamante ni comme plan A. Hmm. comme plan B ñun du ñu ko mën a xam da ngay dem rek ba yem ci dal ci constaté ne man honnêtement wallahi lazim hmm. bu yoof parce que dama am soxla yof dem yem ci affaire bi gis ñu def kii bi gisuma ko fenn yëguma ko woon honnêtement. man ci dalee alors que je pense que ñun ñi nga xamante ni ñun dañuy xëy di wër information bu fekkee ne ñun mënuñu ko yëg. c'est parce que il y a problème quelque part beneen bi mooy la répartition des tâches situer responsabilité yi am na ci loo xamante ni Cheikh tey xëy na bu koy def dafa nar a dafa nar a nekk avocat CETUD xaw ma ban parce que la mobilité urbaine CETUD moom moo koy gérer. Mhm. donc aujourd'hui ñoom aussi seen niveau de responsabilité ci affaire bi nii fan la toll. ak ñoom aussi ci wàllu communication bi aussi fan lañ ci toll leneen li mooy la ci dafa mel ni moi j'ai l'impression que gestion des conséquences la ñuy gën a def ñun par ricochet gestion de l'urgence c'est-à-dire que tey sur vingt ans dakaar nan la war a mel sur vingt ans gis nañ ne léegi ci wàllu tabax ak xeet yooyu ñoo ngi ci macrocéphalie amatuñu suuf euh, c'est fini maintenant dans vingt ans dakaar lan la war a nekk lan la war a demee ci wàllu transport ci wàllu santé ci wàllu nangam ci wàllu nangam ci wàllu nangam yooyu yëpp tey jii je pense que ne euh, on va vers l'incertitude la seule certitude que nous avons c'est notre incertitude par rapport ak sunu avenir waaw mm-hmm. ah, je pense que ne loolu aussi Cheikh xawma yéen lan mm-hmm. ngeen ci lan ngeen ci euh, kii beneen bi mooy est-ce que on peut envisager aujourd'hui encore au-delà des autoponts yi nga xamante ñoo ngi koy defar nii ay mission de correction ci yeneen euh, ci wàllu infrastructure tey ji est-ce que amul leneen loo xamante ni aussi war nañ ko corriger parce que moo ngi nekk di sonal li nga xamante ni moom mooy Dakar waay beneen bi mooy euh, toutes les ville modernes trente pour cent au moins dinañ ko octroyer à la circulation. Mm-hmm. tey jii ñun nous sommes en deçà de 10 pour cent est-ce que dans ce sens aussi on peut envisager. Euh, foo xamante ni xëy na nit ñi dëkk nañ fa parce que voie de dégagement nord bi loolu la ñu waxoon ne loolu lañ ci bëggoon mujj gi ñu jaay suuf si. Ah, gars yi daal di koy tabax ak yooyu dëkk ci est-ce que tey ji mën nañu dem vers une mission de correction dans ce mhm. sens-là